Magic Records. téléspectateurs yi ñi nga xamante ni yéen fo safoo Dakar Buzz ñëw leen ak jàmm euh, tey nag ñu ngi fii ci kër daara ji waaye daara ji nag bu ngeen gisee plateau bu yanj bi ngeen xamante ni lii ci biir néegu sëy la jëm ak xale yi nga xamante ni ñoo bëgg am form góor ñi nga xamante ni euh, seen néew kàttan ci néegu sëy dafa dafa dafa dafa tuuti am na tamit ay produits yoo xamante ni euh, buñ commencé tuuti waxtaan bi ki nga xamante ni moo di borom produit ak soxna Mbodje dinañ ci indi ay yaatal yu bare bari pour jigéen ñi nga xamante ni aussi tamit seen biir néegu sëy daal du neex soxna Mbodje ñu ngi lay xaar bu baax baax waaw maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax waa Dakar Buzz di leen wax na tey soxna mbooja ngeen ñëw fekkaat ko fii ci daara ji tey macha allah duma fi gan fii sama kër la te parce que man maa yaayu daara ji macha allah kon ku ma gis rek ci site bi di nga xam ni Mbodja Mbaye daara ji la fi nekkal macha allah borom produit yi baax yi tarkal la yi nga xam ni def gis la doon beneen bi ci des mooy ki nga xam ni borom xam-xam rek la. muy Seexul Xalil macha allah yàlla am lu mu ko may nag mu dëxañ ko toog daal di li nga xamante ni tarkalla moom lay ja baaxe jaamu yàlla yi lépp mu tënk ko nag ci xam-xam lépp rek mu tënk ko nag ci xam mu doon li jariñ nit ñi kon nag wedd gis da bokkul ku ñëw ci daara ji ba dugg si rek di nga xam ne fii diine kese nga fiy gis te moo fi nekk tarkalla muy nag nekk ci yoonam yor ay produits yu baax macha allah nag war war baaxe jaamu yàlla yi kon mu ngeen ma fekkee fii ci daara ji Dakar Buzz ma jàkkaarloog yéen dinañ leen suñuy produit yi wax leen bu ci nekk lan lay def fii ci daara ji di leen xamal ni produit yu baax la yu amul benn effet secondaire te bu ci nekk dina leen faram fàccee lu muy jariñ ku euh, ñu jox sëriñ bi mu nuyoo après ñu jub ci lu waxtaan wi laaj ko produit bu ci nekk lan lay def ak lan mooy njariñam incha allah tamallakta alhamda hatta ma li muhtamalin fi lhamdi haun wala mim wala daalu wa nusalli wa nusallim ala saydi albasar xaatimul anbiyaay wa imam almursalin soxna Mbooju maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar baax a baax Seex Xaalid Dakar Buzz maa ngi leen di nuyu di ñaan yàlla dafa leen jàmm ak sutura wax dëgg yàlla yàlla dafa rëbb ñi nga xamante ne ni dañuy siiwal mbonte ak luy féewale nit ñi waaye dëgg-dëgg Dakar Buzz defuñu loolu kon yal yàlla dëgëral leen ak ñu nekk ci Dakar Buzz yëpp soxna Mbooju maa ngi lay nuyu ak bépp personne personne bu nekk ci waa daara ji di jàpp ci liggéey bi. waaw sama góor man dama lay delloo ziar bu baax rek di leen wax ne targal la la woon fa woon rek doole cere yokk ñeex ndax jamono ji ñu toll ku nekk góor dafa xam ni góor dafa war a baaxoo lan muy taxawaayam ci comportement am ndax góor doon góor ak góore du benn te ku nekk xam na góor lan mooy njariñam ci biir nekk. ak maa bëgg góor bi nga xam ni tarkaala seexul xaalil daf lay jàkkaarloog yow dugg ci biir néeg rek su meeku nga kontaan tàkkaay nag ma wax leen dafa am loo xamante nii góor ñi ndeysaan ñu ngi ci ñaw seen bopp nga gis goor goo xam dafa am na ko yàlla dibbinde mu naw ci boppam fekk tarkaala bu wéeteeg jigéen rek jigéen ji xeeb ko parce que naw na boppam te fekk ni yaa reexe te jigéen joo di wax ak ju waxul amul ku bëggul góor mel ni mu war a mel ci kanamu ngóoraam ay jigéen lañu dañuy waxtaan complexe gi la sénégalais di baax te seexul xale dafa am nu mu taxawee noo xamante ni ah mbir mi dafa jaratul làq-làqal ak nëbb nëbbal parce que jàngoro ji dafa bari ci biir il faut mu leer parce que taarkaal la man dam góor ñi dañ may woo dañuy wax ak man te gis naa ne que garab yi mi ngi def effet ci ñoom bu baax taarkaal la garab nag du seer na jariñ nga gis buntu mu réagir nga gis te mooy lii mu am nag loo xamante ni dama bëgg góor bu ne tëll ci biir néeg jigéen xool ko ne ko ah te xam nga jigéen am na noo xam boo ko boo ko ne tëll ci néeg bu doon ne ah nga daal gis ma bajantu daal di wóolu boppam xam ne daje naa góor mais des fois góor naw boppam dugg ci néeg jàkkaarloog jigéen jigéen ji ni ko waa eh lii <laughs> nga xam ni mën ngaa naw sa bopp fekk ni yow la nga war a toll tolloo ko sew xale noonu la taxawee te loolu lay faj te loolu lay xeex fii ci daara ji en góoru mbooja li nga wax dëgg la te noonu la amee garab yu baax la yu wóor la gannaaw bi jàngee téere yi jàngale ci gannaaw téere yi toog ci mbóot mi mooy li may faral di wax chaque jour sirrun fa sirrun wa in fasha fa sarrun mbóot dañ koy nëbb soo ko weeree rek nekkutul mbóot boroom xam-xam bi waxaat ne waqad xadara al asyaaqu min nashri sirrihim wala sirri irfun yajri ma nasri gis nga parfum fii ma ngi nekk ci kees gi rek doo xam lim saf waaye soo ko pi piisoo rek mbóot ba secret ba dem na loolu mooy mbóot moo tax ma nëbb mbóot mi di wane li nga xamante ne mbiru zahir la mooy néew kàttan gi mooy awra yi di dellu mooy hémorroïde bi mooy ñàkk appétit bi mooy tension bi muy fatiguement général bi muy yokku taaru jigéen ci comme ni ko borom xam-xam bi waxee woon ne hay fa u muqbila ak gisa u mudbira nee na jigéen daal taaram mooy bu jàkkaarloog yow rek doo gis ci moom dara lu dul kanam nga muy ween ya waaye biir ba dugg kon am garab buy faj loolu. bii moo koy faj bii mooy awra jigéen bii moo koy guddal moo koy bii moo koy rëyal ba ci ween ba ci fes yi te ku nekk xam na nu góor lu koy gën a yëngal ween daf ci bokk ak sexe ci ginnaaw doon fes yoo xam ne tarkaala bu ne bëxët nit nga xam ni ki yëg na dara ak tamit mu ñett ci jigéen yépp te intéressé sa góor kanam ginnaaw dënn boo jaa wax li di xaar leen sama góor loolu lay def li nga ko waxee daal jigéen boo xamante ni daal da nga bëgg yor nga sax dara waaye danga bëgg mu gën a màgg mooy danga naan yokkal ma ko moo tax ma tuddal ko ma tuddee ko yokkal ma yow daal boo takkee cité da ngay gis ne dafa tuuti wala ki ngay seqal mbëggeel bànneex ci laal bi moom gis na ne lii dafa tuuti te gis nga ween borom xam-xam yee ko wax de mooy taaru jigéen jigéen daal dafa war a am salaamaaleykum uhuh. waaye dafa am war am maaleykum salaam uhuh. mooy saa yu la doo gis ci moom dara loolu ay taat mooy ay faawu muqbila ajzaaw mudbira du samay wax waxi borom xam-xam la ku bëgg daal ween màgg bii moo koy màggal ma yokkal ma ku bëgg daal am fees yu yaatu yu liis yu rafet boo solee robb mu jàpp la boo solee baa mu jàpp la ba pare nag duufal kanam gi muy mbott mi mu gën a duuf te bu duufee rek neex mhm. garab gi ngay wut mooy yokkal ma. tey sama góor waaw. buy bu buy bu tojul du am njariñ dama am kersa <laughs> dafa am kersa waaye man Mbodja dama koy bàyyi kersa gi man ndax kersa goo xam yaa ngi wax sa soxla te ba pare teg kersa gi bii mooy alxabi bii mooy aljalaal aljalaal aljalaal la ngi nii nag bii petit la laaj jinjeer bii tamit dangay reer ba suur ndax góoñu ci bari nag kaa leen waxante dëgg dañoo am problème mu ngóora yéeg léegi ci léegi birib dip ñëpp moom la ñuy kaas problème boobu loon am ci biir néegi parce que stress bee bari tarkaala lekk gu ci bari baaxatul góor ñi stressé sew xalil daat ni mi ngi jëlaal jalaal bi da ngay reer ba suur day raxas sa deret hémorroïde daf koy dagg ta tension yooyu yëpp lay faj yaa ngi dégg ulcère sa garab gi daf koy faj parce que garab gi raxas deret rek wàññeetu bàyyeetul dara bii da nga koy jël reer ba suur nga naan sa kaas moo lay tee vendredi ba samedi ak dimanche bu la neexee bëccëgu yoor yooru saanu lépp li nga soxla dala koy jox muy alxabib bii mooy bii aljalaal aljalaal moo nekk bii petit cola laaj te seexu xale lépp li muy liggéey yëpp amul effet secondaire te fii ci suñu réew mi lañ ko liggéeyee muy garab goo xam dafa naturel kon bii mooy aljalaal mi ngi nii reer ba suur naan sa kaas tëdd nelaw nekk ca kaw vendredi samedi ak dimanche lu jeeg bi laaj nga jox ko ko ñu moom day jeex ci kër yi parce que da jeeg moom bu néegam neexee bu xëy da nga koy xam day felaale rek di way rek di sànneeku nga naan kii lu xew ci kër gi mu toggala lu neex di la jox ndax lan góor ndiggam lan koy nawee ku sa ndigg paan nag tarkaala say wax du bari dañu waxante dëgg waaw garab gi mooy al jalaal turu yàlla la boo xamante ni mën na fal nit mën na folli nit li ci dëxëñ daa bëri waaye man ma dugal ci biir tur yàlla wi foofu ndax jamono dafa tëri di nit mën na laa liggéey jox la lekk nga lekk ko wala mu jox la naan nga naan ko mu jox la poson nga lekk ko am na loo xamante ni mën nga koo lekk mu rey la léegi am loo xamante ni soo ko lekkee day tax nga jagadi sonal say mbokk giru dund da feebar mu waral néew kàttan mbaa xam nga ne am na góor ñoo xamante ne nii suñ demee seen aawa yi am nekk bu baax lépp lu aaw bi soxla ci Kaolack dinañ ko jox waaye suñ génnee kër gi dem feneen dañuy dañuy wàcc. lu waral loolu. moo tax tur yàlla waa ngi ci biir su ko defee nag bu fekkee def-def la wala rab la wala lu mënti doon aljalaal day génnee néew kàttan gi ba pare da lay sawarloo da lekk bu baax dangay nelaw bu baax te li ci gën a jéggi day mooy hémorroïde da koy faj bi ci biir ak bu ci biti parce que liñ ci def ci ren toll na ci fukki ren ak ñaar am na yeneen yoo xamante ni ci wàllu bopp lay faj lu mel ni bët yu neexut bët yuy fulu lu mel ni bakkan yuy fatt mooy sinusite lu mel ni maanaam nga am enzyme sa put gi di tàgg yooyu wala nopp yi di tàng wala bopp bu métti loolu da koy faj am na reen yoo xam ne loolu rek lay faj ci wàllu biir biir boo xamante ne nii dafa yuuxu dafa def ngelaw wala biir boo xam day jooy wala dooy am na lu nekk ci biir bi ba tere laa lekk day raxas biir bi ma ne soo ko naanee suba balaa jant soo lépp lu nekk ci biir bi dina ko raxas te lépp lu duggaat ci biir biir bi du def dara benn waaye woona ma barki dem bitim réew yàlla xam na ko ni moom soxna Mbodj man ko amu ah na ma garab gi ku ko naan te yëgoo ci dara moom bu yeboo nga faju ci te xam ni kon feebaru tële nekkatul ci yow da ngaa da far yàlla yow da nga faa jaare nag yow daal di yàqu benn yoon ndax garab gi man naan naa ko te xam naa ne sama jabar jour boobu yendu fi daa mujj génn kër gi ndax damaa ne ci kër gi di xiiru mel ni gaynde barki dem boo njaay la ma ko benn waaye wax te xam nga ñun jigéen lan moo lan moo lan leen gën a bañ sunu àdduna waaj ba préparé ba filaale nga dikk ni yaa ni wàcc daf ni énervé loolu dañ koy jooy ñaari fan te garab gi loolu lay xeex pour ñu bàyyi ci xel day tas yaakaar. mbaa xam nga ne gis nga néew kàttan gaaw daan dafa xaraam. non dafa xaraam du samay wax borom téere ko wax li ma fiihi min izyatil mar'ati wa izaatul muslimi xaraamun xam nga lor sa mbokkum jullit dafa xaraam te gis nga jigéen benn minute ñaari minute yi pour yow la te ku daanu wàcc ku daanu doyal waaye moom ndax daanu yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon na ko ne képp ku nekk ci kaw lal bi boo daanoo rek bul sol sa tubéy wala nga sanguy dem fexeel ba kooku nga ko seexal mu bég borom daara ji ngay waxal Cheikh Al dama ne damaa dem ci benn xew benn waay gis ma ne maa ngi lay gis ci tiktok bi nu ñëpp ngi toog ma ne du ma la nëbb sama jàngoro ma ne ko luy si jàngoro ma ne su ma yónnee ñu ne mayel sa bàyyi ndox yow su ma wootee ñu tànqam lu ma ma ne ko fu ma dem dama yóbbaale garab gi fu ma ti dem biir réew bi ti réew ma xelli kaasu ataay jox ko sama loxo yu tedd yu barkeel yi mu naan ko fexe ba am sama numéro sant ngërëm lu ne def na ko nee na ma daal ma may ko ma ne mujj gi naanatul kaasu ataaye léegi kubéer bi rek la koy naanee nee na da ciy sëgg sëgg ci sëgg ci yenn saa ñi taajal ko añ wala reer loo xamante ni wóor na yàlla joxewu ko ñaanu yàlla gi rek doy na sëgg ndax damaa jàngoon ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man nafasa an muminin kurbatan min kurbi dunya nafasa wallahu anhu kurbatan min kurbi yawmal qiyama képp ku nekk si jafe di julit nga teggil ko naqar boobu ak fitna boobu keroog yowmal xiyaam bu ñëpp jaaxee yow yàlla dalay may nga dugg aljanna te foofooy nag wa inna ala rabbikal muntaha kon jeex na tàkk parce que am na xale yu jigéen yoo xam ne nangu ñoo sol sax déguisement yu sexe parce que saa yu ko solee ba mu sexe rek ba taay bu ñu dodee tëll ci néeg bi rek war a wëndeelu défilé di xaar waaja waaja di daal di wàcc mo kon gaaw wax ci moom nii may wax ak yow barke Serigne Touba dafa bari ci jàngoro yu góor ñi ci boppam da ngay sol déguisement di préparé ñoo fekk góor ko moom wàcc na togg di la xaar léegi nag kon ko wàcc moom ba toog kon mo du moo la fay defal dara te loolu la garab gi di jariñ seen xalit bi ban la kii mooy jéggi dayo hmm? jég lu jéggi dayo lay def ci kaw lal bi wax yi ba ma ko day ba nañ ma jox taan xam nga waa ji bi mu tuddee yonent bi sallallahu alayhi doom ji mu ñëw ci borom xam-xam bi daf na ko ni'mal ismu wal ixtiyaar nee na tur bi rafet na loolu te neex waaye sa tànn bee ko gën a baax kon tur bi moo gën a jéggi moo moo moo jéggi dayoo gis nga kii leen rek ci lay dox mooy new kàttan. donc donc donc donc waaw ñi ko xam te dë xam ko nag te miin ko lool lool léegi wa léegi ñu xale yi ci daara ji ne jox ma nàmp bi ma ma ne luy nàmp bi ñu ne kat parce que lii kat soo ko jëlee moom da nga cay nekk rek moom moom te nag li ci gën a yéeme mu tax mu tuddee ko jéggi dayoo mooy soo ko naanee tey benn kaasu ataay suba doo ko naan déedéet lii baaxul ci célibataire déedéet lii baaxul ci ku yor benn jabar ndax benn jabar su lay wut ak célibataire su tukkee célibataire nga su feebaree célibataire nga ma ne kii mooy jéggi dayoo dafay def lu jéggi dayoo ci faj néew kàttan ak gaaw a daanu xam nga néew kàttan dafa bari ay façon man nga caa nekk gaaw a daanu man nga caa nekk soo soo daanoo benn bi bala ngaa jógalaat da yàgg te borom téere bi dafa waxoon ne euh, fal mar atu tansiqul wata masna wa sulaas wa ruban ne na jigéen bëgg na guddi gi nga def ko benn def ko ñaar def ko ñett te gis nga kii ngay naan ci néew kàttan nga jàpp soxna si di ko bégal muy bég nga di ko bégal muy ree mu yuuxu nga di ko bégal muy jooy nga di ko bégal ba la baax na daal dañ lay respecté de loo wax ñu ne la ah nijaay balaa ngay <laughs> yeggale ñu daw def kursi ya waaye fi mu doon bu ñu xoolee ni fii lépp a nooy taar kàlla boo xam ne la kii dafa bari waxtu moom te bëgg détail rek man wax ju bëri ji lay bañ dugg ci néeg bi ni pat nekk suñu téléphone kon góor ndiggam day téye kër kii mooy nopp ay pour sama mbokki jigéen ñi bàyyi ci xel loolu dama koo def yàgg naa ko liggéey xam nga maanaam dama àndagoon sama benn wëllër. waaw ah, taxaw ma laaj la fii nag sa yow xale taay da ngaa mel nag ku da ngaa mel ni ku jug-jug bu bees de ndax ma li ma fekkaat ci daara a ah sama góor da defar waat de lan moo xew nii wax ma mbir yi. mooy la ma la waxoon rek jaamu yàlla si jaamu yàlla yi bari daan wax sama xale yi may liggéeyal ma ne leen jamono ji ñu nekk gannaaw joxe farata yi li yàlla moom jaamu yàlla gëntu mag dimbale jigéen ñi seen néegu sëy dimbale góor ñi seen néegu sëy faj doomu aadama yi xam nga tëdd tëdd yëpp bon waaye feebar doy na mbugal li gën a tuuti ci nit rek mooy bëñam bëñ su doon métti rek ngay xaw a dee te jigéen ñi ndeysaan man li def naa ko rek génnee naa mbóot mi nee naa la secret man duma ko weer mais li génnee naa ko muy nopp bi ngir jigéen ñi la sopp yow di ma woo dañoo bëgg jot soo mbooñu bàyyi loo koy doyee dama bëgg téye sama borom kër dama bëgg sama borom kër yem ci man bul fàtte am na ku ma masoon woo ma jox ko sa numéro nee na dafa boroom këram dafa fekk ci armoire am mu mu denc fa capote mm-hmm. nee na boobu la jaaxle léegi ne kooku danga koy dimbale gis nga bu jëfandikoo kii ba pii dafa am zahir am baatin zahir bi mooy day yokk mbir mi neex si cook yu demee noonu yu ne ak caalit caalit goo xamante ne nii ma ngi ci biir ndax da ko yokk neex. boo dajee ko yokku de ni mu ko yokkee neex te fi mu nekk nii gis nga jigéen bu ko jëfandikoo ni ma koy waxee. moo kim ko séq ak dee rek moo leen tàqale kon ma koy moytuloo ku am far bii bu ci xóot parce que samay mbir la pour jigéen ñi la gën a intéressé ñoom la gën a yitteel du ma bàyyi seeku xale moo ko ba mu jeex parce que ku xam fa nga jëm doo yegg ku mu intéressé wooteel ci numéro bi Mbodja Mbaye ngay jot ñu jokkoo ndànk ma jaay la ko yéen jigéen ñi xamante ngeen te ku nekk xam nga ne problème mu téye sa jëkkër nga am ñu ci baree baree bari kon lii du duñ ko doj ba mu jeex cax la après bu ngeen ma wooyee léppay yegg bii mooy bu jigéen bi ndax jigéen bëgg na te jigéen ñu bari dañuy bëgg a tee seen copain waaye maa ngi def attention jigéen boo xam ne da bëgg teesu copain ngir xaalis ngir alalu àdduna soo ko jëfandikoo wax ma ma wax la ni koy jëfandikoo dutu la baax. Ah, bul wax copain jëkkër nag sa xol ñëpp bëgg lu baax jigéen ñi bëgg nañ seen jëkkër yi tee leen baax waaye am na koo xamante ne ngoro gi yàgg na lool ba léegi ñëwut yónnee kon kii su ko jëfandikoo dina yónnee ba pare ba pare am na góor am na boo xam ne góor moo koy jëfandikoo moom it su ko jëfandikoo am ñaari jabar ñetti jabar moom daanaka ñëpp dañ la koy lu mu wax ñu déggoo. bu fekkee bu demee fële ñu jox coow bu ñëwee fii mu jox ko coow moo yor baatu kër gi su ne waaw waaw la su ne déet déetam la. ba baax na bu ne waaw sax waaw la bu waxee déet sax dañ naan ko waaw sëriñ bi xam nga xam nga tasxiir dama dem Maroc am ku ma fekk ci raw rawdu Cheikh Tidiane ma ne ko maa ngi dal Babul Medina hôtel fekk ma foofu mu fekk ma fa ma ne ma damaa bëgg sama jëkkër France la jógee sama bëgg sama jëkkër yem ci man téema te bëgg naa ko te yàlla rek tax ma ne ko lu la jaral mu tekki ceenu oram jox ma ma ne ko la jaral mu génnee iPhone 12 am jox ma ci koor gi reen gi yàggut ma ne ko loo bëgg ma ne ma sama jëkkër dama topp rek ma tas xiiral ko ko ay wérdoo turu yàlla yu yàgg lay laaj waaye lii nag mooy téye sa jëkkër wala yow góor nga téye say jabar garab gaa ngi noonu soxna Mbodj kon nag li ci des yëpp ku ci bëgg xam lu leer rek na ñëw te fe yaakaar naa dina leen ko war a jaral nag ndax ñu ci ñu ci baree baree bari bëgg nañoo sëy mais tey seeni borom kër moo bii moom sama yëf la moom bii moom du koo bëgg moom bii moom moo koy wax sax damay ñambax ñambax yi parce que taarkaal la li ñuy soxla yëpp daf koo tënk moom moom dafa tënk lu bari buy mooy guddal rëyal dëgëral moom ñett yëpp la boole guddal rëyal dëgëral tax taarkaal la gaa yi xam nañ ko de bii moom taarkaal la yi xam nañ ko bu baax a baax kon nag ñi nga xamante ni wallaay azim barki démb góor woo na ma woote boo xam nee na ma man sama lii man xam naa ni moom du ñëwati wallaay azim nee na ma soxna si man ko ah mu ne ma du ñëwati man ko tax du ñëwati mu ne man lii nii la toll ba mu ñëwee ba léegi dañ maa may jabar Sénégal ma war a ñibbi waaye sama problème mooy man ni ma toll man xam naa ni man mënul ma jigéen lenn sama sexe tuuti na tuuti na ba dépassé ma yaa ngi dégg dama nag naan naa garab gu ne nañ ma nag bu ne dama cee doyal sëkk ndax lu mat 5 ans maa ngi faju ma ni ko ma jël photo yi envoyé ko ma ne ko sama ngaa jël yi mu ne ma déedéet ma ne ko mosoo jël yi mu na ma déedéet ma ne ko essayé ko moom butéelam léegi lay dem incha allahu rabbi parce que moom incha allahu rabbi euh, GP moo fi bàyyi butéelam nee na ma soxla mbooja man ko am ah, mu ne ma bu fekkee faju naa sama jàngoro ji wér na dinaa teral ba Sénégal njaay gépp xam na ko yàlla na wér nag ndax man fi mu toon ma teral laa bëgg te xam naa butéel moom ma ko war a defal ndax waa ji li muy wax jàngoroom la te mitti na ko te may nañ ko jabar te ruus na sax summeeku ndax góor gu dem bay jooy xàcc ka ni natt nga sa bopp ci seetu gisoo fa lenn kon xam nga ni góor bu ñàkkee ngóor am pare na nguur nguuram mooy mooy léppam bu ko jàkkee sa fini ki bii nag mooy guddal rëyal dëgëral këcc boo koy diwoo da ngay war sa naq ba mu set nga ciy téye nag di bës di xëcc guddi gi booy tëdd da koy bës di dàmp di xëccaale ba mu toll ni la neex balaa karaw gi di sa xaar tarkal la nga yor bi nga bëgg incha allah rab balaa karaw gi di sa xaat seexul xalil moom ma wax ma yàgg ci daar ji xam seeni produit yi maîtriser ko ba su ma koy wax tarkal la damay am envie te da ngay xam ne mbooji mi li muy wax da koo gëm ndax loo nekk suba ren ba déwén gisoo ci njariñ da ngay reculer ah te seexul xalil fi mu jëm da koo da koo ñime tarkal la ndax day xale nekk ci yoon yor ay produit am yëpp baax macha allah mu xam ci njariñ li di ci gis ay retour te da Malick mais toog xam na ci dara na ma nga kii kooku dina teral ba adduna lii un plus un égal tënk ko ci incha allah bi iznillah la wa asrarullahi ah, moom ci lañ ma war a tere la de maanaam secret yàlla moo ci nekk ak dogalub yàlla kii da nga ko ciy diw rek muy liis nga di ko ci diw moom da koy rafetal da koy rafetal awra bi maam da koy guddal da koy dëgëral da koy réyal maanaam lii daal alxadib laa ko tuddee ngir tegginal wax ji alxadib ci arab mooy awra la nga xamante mooy jóg mooy dugg fële xam nga mimma laa yaxtalifu fi isnaani loo xamante ñaar duñ ci werante mooy awra jigéen dafa xóot te awra jigéen day yokku day day ëmb day jur kon ma ngay yokk léegi nag kon bu góor bi dañ ko war a yokk kon doo wax rek ne gis nga awra day dellu am na koo xam guddoon na waaye ma ngay dellu di dellu léegi nag bu fekkee da ngaa bëgg mu gën a ñëwaat gën a gudd gën a rëy gën a dëgër comme que lee ma ngay gën a yaatu kon awar a góor dañ ko war a yokk mu gën a dëgër gën a gudd kii daal bii soo ko jëlee diw ko ñetti semaine maanaam semaine bu njëkk bi dina rëy semaine bu ci topp mu dëgër beneen semaine mu gudd. te neewoon nga sexe dëgg bu jógee dëgg mu duggal boppam kenn du ko téye loxo loxo amu ci yoon. xam nga loolu la waxoon dama ne sexe bu jógee jëm fi mu war a jëm jóg te dem bu jógee loxo amu ci yoon. loxo jàppal ma loxo dimbale ma amu ci yoon loolu laa waxoon nag am na ñu am ñu nekk ci tiktok bi am na xoolal xoolal am na kenn tiktok benn tiktok am na ku yor tiktok bu am doole yaa bonta ñàkk jom yaa am saydi nday xam nga boo gisee ma téye vidéo bi nii léegi moom su daggee man maa ne Cheikh Al Khalil borom daara ji xam nga ne man jàngal na lu tollu ci juróom-ñetti fukki xale yi bañ mokkal alxuraan ci fii ci Ndakaaru man maa ne awra su jógee loxo dimbali ma amu ci yoon te wax dëgg yàlla ku yor awra dem fële fa mu war a dem loo loxo amu ci yoon te fu mu dugg nag réaction da caa war ànd ak bi ma ko joxee waa ji mu jëfandikoo ko ay ay weer dem dëkk ma ne ma sëriñ bi gisuma dara ma ne ko ndax boobaak léegi gis nga soxna si sëy nga ma ne ma déedéet ma ne ko soxna si ma ne ma aw ma paas maa ko may paas bi mu demee yeewu suba teel woo ma ne ma sëriñ bi jëf sant naa la gërëm naa la baal ma àq maa la tooñ ma ne ko lan la ma ne ma tey dégg naa lu ma masu dégg gis naa lu ma masu gis loo gis ma ne gis naa ay réaction yoo xamante ni ay yuux wàcc laal bi mosuma ko gis te réaction fi mu commencé mooy ba ko ko roofee. yaa bëri kersa de. bii mooy bu ndaw bi. bi mooy dëgëral ak rëyal bii moom du guddal mais day dëgëral day rëyal dëgëral rëyal moom lay def maanaam day yokk awra bi ba pare daf koy dëgëral këcc parce que am na ñoo xam ne am nañ awra normal mais du dëgër bu jugee day nooy. kon nag bii moo koy dëgër këcc ba pare yokk ko asew xaalin am na koo xamante moom gudd na waaye moom su jógee day nooy dëgërut bii mooy xaddi pilis moom leen rek lay def mooy dëgëral awra bi réyal ko te lii mu ñuy wax dëgg de moo tax nit da koy wax ne moom ma ngi def nangam ma ne noonu la war a def wala ma lay jox garab bi ne dina def nangam ak nangam ak nangam ma ne ma noo ko xamee ma ne ko dama ko jëfandikoo waa daara ñii nga gis ñëpp jëfandikoo nañ ko gis nga bii di dëgër am na ku ko jëfandikoon dem seeti kër ga billahi wallahi talaay coow lu bari la bàyyi kër ga dina dugam du dugg xaju si xaj na ci garab gi mooy xadi pilis fii ci daara ji la te gis nga garab gi dafa am lu koy toj jigéen bu fekkee da da ngay ki lu koy toj daal soo wootee déedéet dinaa ko wax ñu koy jënd. Ah. léegi léegi bii nii bii dañ cee waxoon ka ni ni nga koy diwoo booy tëdd nga diw foroote bés. Mhm. sol sa caleçon tëdd boo xëyee ba sangu nga defaat ko noonu góor ni ma est-ce que boo koy def da nga war a sëy parce que am na ñu war a ñëw fii war fee def 15 jours war a utiliser garab ba mu yegg seewul xalil te bëggaguñ cee nekk ak jigéen est-ce que da nga koy jël di sëy wala da koy jël ba pare soog a sëy kii subal angoon xam nga sëy moom ni sa akum xarsun lakum jigéen moom sa soxna la saa yu la neexee rek nekk ci Seydina Aïssa soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon dafa dem seeti benn rakam mu gis ko muy sollu yaraax sollu woyof ci biir kër gi ma ne ko sama biir kër bu ma fi nekkee damay sollu woyof ndax alaaji saa yu ko soxlaa rek ma ajal ko ko kon garab gi mën nga koy jëfandikoo ba pare di sëy mooy garab gi di xadi pilis mën koo jëfandikoo di sëy maa ngi sant tiktokoor yi nag nañ daggali tiktok publicité ma garab gi mais loolu taasu la sax jara nga ma bàyyi yaay bàyyi bàyyi saa yoo ma soxlaa ma aj ñu wéy ci ndigal loolu kay jeex na ñu daal di collecté foofu waaw sant gërëm numéro téléphone yi dina jàll fi Dakar Buzz la ñu waxee wax ji nekku site yëpp laay dem de te garab yi sonnu ma pour di ko publicité ndax ku ko jand yaa koy wax keneen keneen wax ko keneen ñëpp ñëw Dakar maa ngi leen di ñaan ñaanal xaas bi jaayi seet ma tijaani xutbil wujudi sama soppe ba ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamante waa ji def na woon sara sirru fii haykali waru waa yi bëgg ba jeex si moom man dama bëgg yonent bi sallallahu alayhi ci barke Seexu Tijaani bi ci barke Makka ak Medina ak ndoxum sam yàlla Dakar Buzz am jàmm garab yi daal te Dakar bës nekkuñ ci caaxaan nekkuñ ci te garab yi dañ ko garanti suñ lay jox garab yi ngay laam-laamee dama naan xale yi fi ne waa daara ji sëriñ ci am xam-xam te maanu te bëri yërmande ndax ku feebar war nañ la yërëm ku feebar war nañ la sutural koy laam-laamee baax na am baaxul wala sëriñ bi nax na ma te maa ngi def attention am na ñuy woote ci daara ji ñu bari di tawat di jàmbat ne sëriñ sàngam sëriñ sàngam sëriñ sàngam lekk nañ sama xaalis am na ci koo xam ne xam nga nit ki da ko jox xaalis ba pare mu saago ko ab sëriñ la sëriñ sàngam askanal boppam ci sëriñ sàngam lekk xaalis nit ngir bëgg mu yokkal ko awraam ngir bëgg mu fayal ko new kàttan mu jël xaalisam pare teg ci ko saaga bis ci bis dinaa leen wax ñoo ñoo ñan numéro téléphone yaa ngi jaar fii Dakar Buzz fowuñ folowuñ nekkuñ ci caaxaan jërë ngeen jëf waaw mi ngi noonu kon nag wedd gis bokk ci ba ci bi nga xamante ni mooy bu jigéen bi sax am na xale yu jigéen yoo xam tarkaal la ñu ci joxe seen xaalis ñu koy jël te après bu ñu wootee ci numéro ba son du ñu jot nit ki dañ fay jaar perte ko kon nag wootee seen xalil wala mbooja mbaay incha allah mooy daara ji nañ leen yónnee seen i garab fi ngeen nekk te amul benn effet secondaire pour ngeen jël ko tranquillement fi mooy daara ji tarkal la wedd gis nag bokku ci wax dëgg yàlla ñàkk xam suñuy garab yi taxul ñu toog fi Dakar Buzz ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax euh, Serigne Saliou bii mooy bu jigéen bi bi mooy bu jigéen bi moom leen rek lay def yokku ween yokku taat ak fes mbott mi mu duuf boo solo mu jàpp la xam nga njiit lay kese taxul yëngulut góor de waaye bu fekkee lay la la nekk ci suuf kii mooy yokkal ma. ni góor di summeekoo jigéen kontaan noonu la jigéen war a summeekoo góor kontaan. waa Dakar Buzz sama càmm sama góor sama xarit muy Serigne Saliou tarkala waa Dakar Buzz nuyu waaye fadal waa Serigne Saliou tudd waaw mi ngi noonu mu ñëw fii na ñu def tournage bi kon nag euh, Bayza ñu ngi koy ziar bu baax a baax jofelu ma dara nag lépp la yombeel ci kàddu geeg lépp wallaay azim ko ni kontaan kontaan kontaan nañ <laughs> taar kàlla waa Dakar suñu xol seet na du nuyu Fadal sama goro boobu séeri Binta maa ngi koy ziar bu baax a baax euh, di ko nuyu bu baax a baax nuyu waa Dakar Buzz yëpp dina wax wasalaam